jërëjëf comme ni ko ñëpp defee ñuy tàmbali di mastawu sénégalais yi di jaal njabootu ñi nga xam ni ñoo fi wàññeeku ci manifestation yi di mastawu blessé yi di encourage di mastawu aussi les détenus politiques Sénégal dëkk bu ñu bëgg la dëkk bu ñu sopp la dëkk la bi nga xam ni amuñu leneen moom rek lañu am moo tax jóg taxawu ko dafa doon un devoir un devoir ci citoyen bu nekk devoir ci citoyenne bu nekk surtout quand l'agresseur est identifié et défendre que contre cet agresseur la agresseur bi mooy ki nga xam ni tous les jours yaa ngiy xool sunu démocratie noo koy nasaxalee sunu ay liberté noo koy piétiner ki nga xam ni tous les jours yaa ngi xool nooy réduire l'opposition à sa plus simple expression ki nga xam ni tous les jours yaa ngi fexe lu mosul am Sénégal nooy écarter ay candidats le président Habib est là, on a parlé hier encore que écarter ay candidats ci présidentiel ci président Macky Sall la tàmbale avant li nit ñi doon jóg di wax cher na wala cherul mooy caution bi la nit ñi jàppee woon xëy na doon na atteindre niveau bi nga xam ni du ku nekk moo mënoon di joxe loolu pour doon candidat fa la wax ji yemoon mais président Macky moom moo yegg si dugal li nga xam ni mooy parrainage dugal également chaque fois nu muy créer ay dossiers pour écarter ay candidats loolu mosul doon le débat le débat ci participation mosul am kon tey taxawu suñu askan taxawu sunu Sénégal protéger ko contre ces agressions day doon un devoir di wax sénégalais yi nag ni xam nañu ni ku nekk ci ñoom fii. jaaxle nga ku nekk ci ñoom ab nga njàqare surtout boo demee ba ki nga xam ni moom nga jël jox ko mandat mu ni léegi yaay dellusi ñaan ma njekk pour ma delloo la mandat xam nga loolu metti na quand le patron qui est le peuple sénégalais jël nit kenn jox ko mandat kooku retourné wu ni je suis le patron des sénégalais da ngeen may ñaan mandat ma delloo la kon xam nañu seen naqar xam nañu ku nekk fa nga toog li ngay dund parce que kenn bëggul sa biir kër nga xajal fa nit jox ko fa cër mu ñëw ba ci biir ni léegi kër gi sama kër la au contraire man maay xool ku nekk fu ma lay classé et c'est ça que le président Macky sal nous a délivré comme message la dernière fois et je sais que sénégalais yi dégg nañu wax ji et je sais que sénégalais yi daan ko yamale placé kon lii ñu nekk di def xëy na dañ ko porté tey mais chaque Sénégalais da ko war porté di remercier aussi la communauté internationale yàlla def na def naa ay fan ci biir adduna bi def ay pays am ñu ma rencontré ñi nga xam ni ay xaritu Sénégal lañu ñenn ñi ni sax ay sénégalais lañu am ay préoccupations yu wér ci Sénégal ni muy doxee tey ñu waxtaan de façon très responsable ku ci war jël sa responsabilité def communiqué wax wax nga et donc ñu leen ci remercier di wax nag ni Yewwi Askan Wi ku nekk xam na ni c'est une très grande coalition et que mosul passer à côté de ses responsabilités d'ailleurs on a parlé du dialogue. On a été invité au dialogue, la coalition à rejeté. Mais, il n'y a pas de terme de référence. Il y a 47 points. 19e point, 47e point, 28 points. Lire les termes de référence. lan lay wax nan ko waxtaane culture sport jeunesse emploi li nga xam ni moom lañ ko falee pendant douze ans mu waroon ci indi ay saafara sénégalais yi waroon toll ci heure bilan à huit mois de son départ muy nan waxtaanee point yooyu loolu rek c'est un aveu d'échec un aveu total d'échec et loolu rek waroon na tax tey sénégalais bu nekk xam ni kon kii en réalité lim ni woowee woowu tappale la parce que ci douze ans yi ñu ko falee dix-neuvième point bi ba ci quarante septième point yi loolu lan ko fale woon pour mu régler kon ñun nekkuñu ci yenn taxawaay li ma bëgg ngeen xam ko wax naa ko léegi mooy la coalition Yewwi Askan Wi est une très grande coalition et le président Ousmane Sonko qui fait partie de cette coalition subit une injustice inqualifiable ku amoon naatable ci injustice boobu la démonstration du juriste Ngagne Demba war na la édifier ci lu bare bare et nous le félicitons au passage parce que tey moom ak Birame Souleye ak Abbas ñoom ñoo fi représenté le président Ousmane Sonko bi nga xam ni ñoo ko séquestré ñoo ko empêché tout mouvement et démb ñoo ngi lire un communiqué de El qui disait que même Djibi Ndiaye son chargé de protocole nga xam ni moo fa nekkoon di def yenn course yi on le lui interdisait et tout à l'heure mi ngi may souffler que ça a été réglé est que loolu waroon nañu toll foofu donc injustice inqualifiable et amul kenn ci ñun ku mës a subir injustice te amul taxawaay bi nga xam ni moom la coalition bi war am ci sa wet moo tax ñoo ngi wax mbokk sénégalais yi nekk biir réew ak bitim réew que coalition Yewwi Askan Wi retenir na la date du 25 le dimanche 25 coalition Yewwi Askan Wi di ci woo askan wi pour yeewi ji le président Ousmane Sonko ci blocus bi nga xam ni moom lañ ko def le 25 boobu. ñu bare ci jasporaa bi xam nañu ni daanu ñëw tabaski si moo tax ñu boole leen ci ak sénégalais yi nga xam ni boobu ba tey ñoo ngi taxaw di wax lii mënul nekk il faut ñu jóg ci il faut ñu xool nu ñuy def ñu nekk mën ñuy nekk coalition bi jóg pour yeewi askan wi ñuy yeew suñu benn leader amul sens ku mënul yeewi sa leader noo mën yeewee mënu yeewu un de tes leaders noo mën yeewee askan wi bu fekkee sénégalais yi wax boobu ba tey ni gëm nañu ni yeewi askan wi dafa jóg pour yeewi askan wi gëm nañu yeewi askan wi aussi nanu jàpp ni yeewi askan wi woo na askan wi pour yeewi un des leaders le président Ousmane Sonko le dimanche vingt cinq à quinze heures et fi ñuy daje daan leen ko nga xam ni foofu la ñuy daje ñun ñëpp bëgg nañu képp ki nga xam ni tey jàpp nga ni da ngaa war défendre le peuple sénégalais jàpp nga ni le président Macky Sall mandat bi nga xam ni yaa ko joxoon toog na ni da nga ma ciy ñaan njekk loolu metti na la képp ki nga xam ni jàpp nga ni dund bu cher bii mu nga xam ni mi ngi la koy teg metti na la képp ki nga xam ni tey. nasaxal na démocratie nasaxal liberté perturber na le système électoral perturber le système social et système économique loolu metti na la le dimanche vingt cinq à quinze heures ñoo ngi la ci woo kon pour parler en français seulement ci action bi la coalition Askan Wi je l'ai dit tout à l'heure est une très grande coalition une coalition qui n'a jamais manqué le rendez-vous de ses devoirs, surtout quand on sait aujourd'hui que c'est une coalition qui paralyse l'essentiel des espoirs des Sénégalais. Et cette coalition présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et à la nation sénégalaise dans son entièreté suite au décès noté après les manifestations qui se sont produites et des manifestations contre l'injustice. Notez cette injustice contre le président Ousmane Sonko